koy jaay mais ma benn bénéfice saa saako bu ko bëggee jënd ay 32 wala 33 mille doo ko mën a jaay lu dul lool 600 lañ ko mën a jaay génn ceebu non parfumé moom kenn mënatu ko tegi gët fii si marché ci leen. non parfumé fu nekk ni aw ma ko euh, dèjà un mois nii jaay ma ko. waaw ah, actuellement nii dégg naa 19 mille 520 mille la jar saako ci magasin grossiste loolu laa dégg quoi. ceebu parfumé naam am na waaye njëg li mu ngi yokk bu baax fan yi ah maa ngi koy jaayee 23 mille 500. vingt et un mille cinq cent la laa ko mujjee jënd avant muy yokk ci fan yi tamit. way jëfandikoo yi ñoom xamuñu fu ñuy jooyee lu ni mel jaaxle la ñu def jommi. ba gën a métti ngay ñëw tas cinq mille doo xam sax fan la aw baa nga tas sa dix mille doo xam fan la aw. ceeb bi yokku na diwlin bi yokk na ceeb bi essence bi ñu naa ay kilo six cent te kilo cinq cent la doon jar parfumé bi. daa gën a tar xaw koor gi mu ñëwee nu ñuy dunde ndax koor gi moom bëgg la nga. daan togg añ ak reer danga koy def benn togg danga bëgg a lekk lu baax bu seere fooy jëlee lu baax te xaalis amul. mel na ni nag jéego yi nguuru Sénégal defoon yépp ci marché bi ngir njëgi bañ a yokkooti lépp jamono gi tàmbali na di nax saay commerçant yi mënuñu sax wax lan moo waral yokkute gu ni mel dañoo xëy xëy rekk mbir mi teguwaat ci seen kaw.